2022 si def programme de développement communal pour mën a xool li nga xamante ni mooy jafe-jafe dëkk bi ñu mën ci indi ay saafara ci loolu it xayma woon nañu ba gis ni dëkk bi jafe-jafe yi ci gën tar bokk na ci muy finance locale ndax dëkk bi amoon na ay bor yu tolloog 302 millions lii mu amel ko ADM lii am lii amel ko AGETIP lii mu amel ko trésor mu li naan déficit au niveau du trésor ñu liggéey ci ba fay bor yooyu 302 millions fii may wax ak ci compte mairie de ci trésor public boo demee dem fekk am nañu benn épargne 408 millions li waral loolu mooy dëkk mënoo koo defar te wutuloo xaalis xaalis boobu it am na ay instrument financier yoo xamante ni nguuru Sénégal moo ko teg te état du gouvernement état mooy administration ak gouvernement mais gouvernement yi dañuy change dañuy dem mais administration bi dafay des ñoom ñooy yore les planifications yi yore les programmes et les projet beneen bi ci topp teg nañu ay stratégie pour wàññi dépense yi nga xamante ni commune def nañ dépense muy fonctionnement ñu wàññi bu baax a baax itamit ñu fexe ba renverser la tendance c'est-à-dire jël 75 pour cent ci xaalis yi ñuy am jëmale ko ci li xam mooy investissement jël 25 pour cent yi mu jëm ci fonctionnement loolu li ko war rek mooy ñun suñu objectif lenn la mooy tabaxaan Mbacké ñu defaraat Mbàkke parce que Mbàkke situation bi dafa ci loolu ñu gis ne bu ñu jógee ci programme de redressement boobu dañuy jëm ci li nga xamante mooy wér-gu-yaram wér-gu-yaram boobu ñu teg ko ci benn programme bu ñu requalification territoriale requalification territoriale boobu mooy quartier yi nga xam ne mooy les quartiers périphériques te yàlla dogal sóoraale wuñ leen woon ci dara ñun ñu ne nañ ci wane sul ñu jël lu mel ne quartier sancaan yi te léegi conseil municipal sax jël na décision waxtaan ci ak kilifa yi nga xamante ni mais kilifa yi Daaru Salaam ñu jël sanc yi rattaché ko ci Daaru Salaam nga xam léegi doonatul sanc yi mais dafa tudd léegi daaru salaam 1 daaru salaam 2 daaru salaam 3 ak daaru rahman tabaxal leen poste de santé équipé ko rendre ko opérationnel lotissé marché jox ko commerçant yi indi fa ndox ndax dañu ko indi neuf bornes fontaine dans un printemps en 2014 pour permettre leen ñu am ndox après ci lañ yokkaat dafa extension bu am solo ba quartier yëpp am ndox bien vrai que danañ leen dolli ndax am na programme bu nekk en cours lancé nañ ko ba am na société bu ko gagné donc on a commencé les travaux donc incha allah dès la semaine prochaine bu ñu ko def avant que démarrage mu démarré ndax liggéey bi ñu nga de 36 millions yoo xamante extension addiction d'eau la te sancaan ci amal lu am solo ñu yóbbu leen courant courant boo bien vrai que mën nañu wax ne moitié bi am nañu mais am na poche yu des programme nañu actuellement nii euh, bu avance de démarrage bu jotee rek à partir de la semaine prochaine automatiquement dañu comme danañ mën a continuer liggéey boobu ñu 9 cinq cent yoo xamante ni dañ koy yokkaat ci périphérie dëkk ndax ñu ko fas yéene def ci quartier Santhiane yi dañ ko def élevage Diamaguène 1 Diamaguène 2 danañ renforcer Guy Dakar ak Ndiayène danañ renforcer Mbacké Démboul Ndiakal ak Bari danañ renforcer aussi Paleen ba Ngàcci Fall dañuy renforcer Daaru Salaam aussi ci côté sud bi ak ci côté noonu loolu muy des programmes yoo xamante dafa am solo pour euh, périphérie dëkk ndox mi 16 kilomètres yooyu ñu prévoir aussi préfet périphérie dëkk bi ak yenn poche yi nga xam ne am na lu mel ne yaaween ak euh, afe ak euh, mbàkki dimb ak euh, benn partie ci jàmm gën ak élevage wante aussi benn partie ci njakalak loolu dana permettre population yi ñu gën a am accès à l'eau et à ci côté santé bi toujours tabax nañu benn poste de santé Paline tuddee ko suñu maam Seynabou Ndiaye avec tous les équipements tabax nañ benn poste de santé fii ci Ndiayène le médecin chef de district moo wax ne bu logement ICP bi parewul kenn ko ubbi commencé nañ travaux logement ICP bi jàpp nañ di d'ici le mois de mars avril dina pare ñu mën ko ubbi ndax déjà équipement yi pare na ñu au niveau de la municipalité ci loolu noonu lañu ñu accompagner le poste de santé de Gawane jox leen une ambulance médicalisée ak aussi ay benn échographie pour permettre leen seen plateau technique ñu mën ko relever mais aussi di jël en charge yenn jigéen ñi nekk ci jafejafe ak maladie yi nga xam ne en urgence ci toujours ci santé bi ñu ñëwee poste de santé yi 360 mille lañ daan am dotation ñu yóbbu ko à 1 million te pare nañu pour yokkaat yóbbu ko a un million cinq cent ci loolu ñi tabax pare na benn imagerie médicale boo xamante ni une rajo numérique lañ fay installé rajo bi 40 millions lañ ko actuellement mi ngi Dakar jàppoon nañu sax danañ ko réceptionné bien avant élection yi mais liggéey bi da nga mu taxaw day wéy donc bu ñëwee rek dès la semaine prochaine ñu installé ko. inauguré ko jébbal ko askan wi daal di continuer ci année 2022 bi continuer continuité projet bi mooy tabax bloc opératoire boo xamante ni dafay am salle de préparation salle de réveil ak salle de réanimation loolu programme ci 2022 bi l' argent est disponible kon xaalis bi disponible na mi ngi trésor incha allah rabbi euh, dès la semaine prochaine ñu yàlla dimbalee buñ ñu ci xat-xat yi dinañu mën a procéder ci li nga xamante ni mooy lancé appel d'offre na xaalis la bu ñu kale ndax mooy 408 millions yi ñu ci prévoir 200 millions yi dañ ko bëgg a injecté waat ci marché bi pour liggéey phase 2 wu marché de Mbacké deux places publiques yi ñu prévoir en 2021 dañ lancé ko ba pare donc élection yi yegsi ñu joxe avant démarrage boobu dañ koy liggéey ak deux yi prévoir prévoir 2022 yooyu yëpp seen xaalis disponible la ci 408 millions yi la bokk bloc opératoire bi ci la bokk ak beneen programme aussi ay lampadaires yi commandé yoo xam ne am nañu un projet de 1500 lampadaires ñoom déjà 100 moo jot a ñëw en guise d' exploration pour ñu yoon ko askan wi est ce que bëgg nañ ko te bi ñu installé yi tas ko ci quartier gis nañ ne nit ñi bëgg nañ ko apprécier nañ kon validé nañ ko pour 1500 lampadaires yooyu mën a ñëw. ñu mën koo dugal ci li nga xamante ni mooy mooy dëkk bi mais ci biir euh, liggéey bi bi ñu tàmbali liggéey ba planifier li nga xamante ni mooy élection yi ci la sunu mbokk suñu premier adjoint Mor Sow am ay jafe-jafe Mor mën nañ nag c'est l'absent le plus présent ci campagne ndax liggéey yu bari ci wàllu politique bi lu ëpp moom laa ko confié woon moo ko doxal donc muy jigéen ñi muy jeunes yi muy collaborateurs yi muy les nouveaux entrants ñi door a ñëw bokk si ñun ñëpp moo doon coordonné loolu ñu téye ko yoon teg ko loxo mbiru yoon la mbiru justice la mais li ma xam rek mooy dara sax te lu waay def da nga wéet ak sa bàmmeel jàkkaarloo si borom ñoo commenté laa ci dem rajo lay waxee ñi ma war a dégg ñu ngi may dégg mais ñu xam ne rek lu waay def da wéet ak sa borom sa bàmmeel dana yow di yàppee ci liggéey bi côté santé perspective yi am na solo ndax jël nañu décision ci biir programme bi nga xamante ni koy lancé pour 2022 2027 li nga xamante ni mooy sëriñ daara yi dañ leen a teel a intégré ci seen programme bi nga xam moo jëm ci wàllu jàng ak jàngale depuis 2014 lañ commencé chaque année ñu insérer sëriñ daara yi benn insérer benn rubrique ci budget bi pour jàppale leen pour ñu mën a créer benn journée ci biir weeru koor wi pour mën a jàppalante waxtaan xam ne ñoom ci njàng mi ak njàngale lañ bokk évolué na nag entre temps jàppale nañ leen ba lu mel ni ay édicule publique ay toilettes am na suñ daara yu bari yoo xam ne jot nañu ko def programme bi nga xamante moom lañu bëgg a continuer ci deux mille vingt deux deux mille vingt sept bi bëgg nañ léegi chaque année ñu choisir dix ba quinze daara alquran defal ay mbaar mbaar yu baax yoo xamante dongo yi dina ci mën a toog di jàng ci sécurité te it bu ñu gënee évoluer danañ xool yi leneen luñ leen war a mën a dolli lu jëm nag ay toilettes ak leneen commencé woon nañ aussi ciblé ay daara dugal leen ci audience foraine yi xale yi pour ñu mën a am ay kayitu jub ndax xale yi ni ñuy protéger xale yi nga xamante ni dañu jàng école nasaraan am ay avantage ci école yu baax ak ay jàngalekat yoo xam dañ leen di fay am kayitu juddu ñu ne nañ ci liggéey loolu dénkoon naa ko premier adjoint ba jàppale ne daara yu baree baree baree bare ba am nañ ay kayitu juddu ci daara yi ba tey bokk na ci programme deux mille euh, vingt deux deux mille vingt que li nga xamante ni moo jëm ci couverture maladie universelle am na ay sëriñ daara. ñuy jotee cible waxtaan nañ ci ak ñoom ba bëgg nañu commencé au moins ak juróomi daara jël en charge ay dongo daara ci li nga xamante ni mooy maladie couverture maladie universelle ci biir CMU lépp ci wàllu santé ci biir CMU bi aussi prévoir nañ ci li nga xamante ni mooy regroupement ñi nga xam ne ñooy bàyyi peel yi ndax seet si nañ ma waxtaan nañ seeti naa leen waxtaan naak ñoom ci li nga xamante mooy seen jafe-jafe ndax xam ku ci tawat rek war sa njaboot tawat da ngay am jafe-jafe pour faj ba dañ lay dajaleen pour nga faju moo tax ci loolu ñu ne nañ jël ñaari couche yooyu jàppale leen pour ñu insérer ci li nga xamante ni mooy couverture maladie universelle ci wàllu njàng ak jàngale ginnaaw bi nga xamante ni réhabilité nañ école Maam Cheikh Anta Daaru Salaam école bi nga xam mooy école Maam ibrahim Ibrahima Fall réhabilité école Cheikh Omar Diop réhabilité école Sëñ Massamba réhabilité aussi école Mame Mor Diarra Mbacké informatisé nañ toutes les écoles yi nga xamante ni moo nekk ci suñu juridiction ci commune bëgg tey jàng tey avant état bi di ko appliquer ñun fekk nañu koy appliquer donc fourniture yi dina ñëw ci école yi bien avant ñun bi jënd nañu benn risographie bu am capital bu am euh, capacité de 10 000 copies par jour installé au niveau de l'IEF pour que jàngalekat yi ak directeur d'école yi seen examen yi ak seen composition euh, yi ñu am possibilité man ko def tirage yi au niveau de l'IEF bi ñu tegee risographe bi dañ cee boole 1500 rames de papier pour que mën leen couvrir durant toute l'année ci cadre boobu ba tey bépp dépense wala bépp organisation boo xam jëm na ci jàng ak jàngale commune de Mbacké mu ci accompagner IEF bi mën na sa cee wax Covid bi ci Covid bi bi bi nga xamante ni mesures yi dal na ci kaw askan wi li ñu njëkk def mooy déggoo ak le préfet de Mbacké bi fi nekkoon comité départemental bi li ñu soxla woon mairie de Mbacké yëkkati ko teg ko ci seen loxo pour démarrer noonu nag lañu accompagner école yëpp ci ay masques ci ay lave ak lépp loo xamante ni kit sanitaire bi nga xamante ni moom la IEF demandé woon fexe woon nañu ba école yëpp am bi ñu def examen yi bi nga xam ne informé nañu ñu xam ne segam élèves yëpp sun ay doom lañu suñu dëkk lañu nekk ci lañu jël quinze mille cinq cent cinquante masques jox IEF ak quarante larmes quarante thermoflash du savon jox ko IEF pour séddale ko ci lycée yi ak collège yi ak école primaire yi pour élèves ma def examen dans les meilleures conditions loolu liggéey nañ ko ci éducation te xam nga liggéey bi dafa dynamique day continuer taxaw ñu gis ne élèves bi ñu ngi jàng mais am nañu jafe-jafe ci wàllu livre moo tax mairie de Mbacké tabax benn complexe communal de la jeunesse l'école de professeur Assane Ndiaye mais ci biir complexe communal de la jeunesse bi am na une bibliothèque municipal bu ci def bindee ko professeur ña Alaaji Si bulletin municipal boobu njariñam mooy programme préscolaire xale yi nekk école primaire maternelle ba ñuy dem primaire ba keroog ñoom doctorat livre yi ñuy soxla day nekk ci biir mais innovation bi ci am mooy livre bépp mu doon boo xamante ni am nga ko ci version physique xam na koy jël téye ko nii da ngay am version numérique loolu nag pour ñu mën koo appliquer liggéey bi pare na mooy chaque école day am plateforme boo xam lii yi nekk ci programme am dañ ci ciy dugalal ñoom ay code d'accès yoo xam dañuy accéder rek jël livre bi liñ ci soxla partager ko ak élèves ndax gis nañ ne classe yëpp rek am nañ groupe WhatsApp bu professeur bi jëlee livre bi ci ci plateforme bi télécharge ko séddale ko groupe WhatsApp bi dana permettre xale bi ci téléphone am wala téléphone yaayam wala téléphone papaam mu am ci li nga xamante ni mooy chapitre bi mu war a jàng semaine bii di ñëw avec explication yi nga xamante ni moom la ci professeur bi doon loolu dafay permettre xale yi nekk à jour par rapport ak si àddina bi toll ndax boo occupé xale yi jox leen contenu ci seen téléphone yi yoo xam ne dañ koy moom la ñuy jànge dañuy obligé di ko utiliser à d'autres fins lépp ci innovation njàng mi la ak njàngale bi ci loolu ñuy ñuy piloté benn projet bu am solo boo xamante ni euh, ñette ko seet muy KFW muy état du Sénégal ak KFW ak la commune de Mbacké KFW financé na commune de Mbacké un grand projet via le ministère de l'enseignement supérieur et de l'innovation muy benn ISEP ndax ISEP bi état bi day teg def ay proposition partenaire technique financier yi xool ku ci nekk ban zone moo la gën a intéressé ban zone nga mën a financé ban zone nga mën a jàpp mais particularité Mbàkke mooy Mbàkke dafa matière c'est-à-dire Touba day dëkk bu mag nekk deuxième ville primatiale du Sénégal c'est-à-dire quand on parle de primatialité mooy ñaareelu dëkk bi nga xamante ni moo ëpp dayoo ci wàllu superficie wante aussi ci wàllu doomu aadama yi fi dunde wala aussi ci wàllu koom-koom yi participe ci réew loolu nag moo tax Touba am na yenn euh, infrastructure wala yenn école de formation wala yenn yoo xam amu fa loolu tax Mbàkke euh, boo xoolee ñun élèves bi jàng si Mbàkke élèves yi nekk Mbàkke 80 pour cent yi Touba la ñu jóge loolu aussi ñu ni koy gérer depuis ñu fi nekk te xàmmewuñu élève bu Mbàkke élève bu li ko waral mooy Touba ak Mbàkke ñaari commune lañ mais benn communauté la te lépp ci kilifteef Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul nekk loolu tax ñu ngi liggéey ci l'intercommunalité entre Touba et Mbàkke conseil municipal bi voté na ba d'accord ci intercommunalité bi conseil municipal bu Touba d'accord na ci waxtaan na ak le maire sëñ Abdou Lahad Ka donc bu ñu jógee ci dañuy procéder ci li nga xamante ni mooy l'intercommission ñaari commission yi daje ci wàllu njàng mi ak njàngale mi Touba li mu war a participer mu koy participer Mbàkke li mu war a participer mu koy participer ñu boole ko mu doon benn pour que élèves yi mën leen jël en charge ci biir participation bi déjà rek am na en vue un projet bu am solo de transport scolaire boo xamante ne Touba ak Mbàkke ñoo koy seet pour mën di transporter xale yi ci condition yi nga xamante moo gën toujours ci wàllu éducation bi Euh, perspective yi yaatu na yaatu na loolu d'ailleurs euh, ci biir euh, complexe communal la jeunesse bi prévoir nañ ci ay rencontre yoo xamante ni mensuel lay doon donc commune bi dafay jël ay programme bokk na ci programme bi ku mel ne Mamour Diarra Mbacké élèves yi war ko xam ñun élèves yi war nañ ko xam ñu bëgg dénk enseignant yi nga xamante ni dañuy jàngale école Mame Cheikh Anta Mbacké euh, école Mamour Diarra ñu def ay recherche pendant un mois deux mois def une restitution ci biir salle polyvalente su defee restitution ci kanamu njabootu Mamour Diarra def benn synthèse mu nekk de cours yoo xam si des cours yu mën a dispenser élèves yi pour ñu xam exactement école bi ñu nekk di fi jàng kooku mooy kan bu ñu defee loolu danañu mën a liggéey ci li nga xam ne loolu lañ euh, les marqueurs territoriaux ndax dëkk yi développé yëpp ci àddina dañuy basé wu si les marqueurs territoriaux maam les réalités de la localité ndax Mbàkke su fekkee da ko bëgg a administré bu koy yemale yi wala beneen dëkk da ngay da ngay juum ndax réalité yi nekk ci dëkk bi dafa wuute ak réalité yi nekk ci beneen la preuve mooy chaque quartier. kilifa ga fa ne li xalifa mooy délégué de quartier moom mooy seet ki ko neex mu proposé ko ñu mën ko ñu man mën ko dénk li nga xamante ni mooy quartier boobu boo fekkee xamuloo walla maîtriser woo comment sax se passe mën nga fa nekk un figurant pendant des années doo jubóo kilifa yi doo déggoog ñoom ci ay programme te liggéey bi mën naa am soxe te dëkk bi fi fi mu tànt jëm mooy Touba par exemple booy xool 45 degré lay dem amul benn ressource naturelle bu fa am jegewul géej jegewul benn activité boo xamante ni dafay war a mën a jur xaalis lu war a mën tax nit ñi daw jëm mais li tax nit ñi daw jëm fa muy Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul looloo waral ñu gis ko tëj këram almadi ñëw takk ndigam def tànku neen xëyal kilifaam ba màggal jeex mu taalal koy loxo sëñ bi ñaanal ko mu loolu mooy capital immatériel sama bokk yi suvent dañuy jàng tuuti wax lu bare addina bi dafa dem ba ñi nga xam ne dañuy yoo ko jiite ci wàllu économie dem nañ ba xam ne ndeke la capital matériel dafa doon loo xam ne day dem ba am fu sës te bu fa day deltuwaat ginnaaw mais ñu dem ba découvrir na am na beneen capital bu ëpp doole la capital matériel muy le capital immatériel capital immatériel boobu moo war gis un multimilliardaire jóge Dakar gaare oto bu jar 100 millions takk ndigam lu lu mu daan bañ këram mu koy nangu ànd ak njabootam di liggéeyal nit ne moom ba pare dalal ko loxo kooku ñaanal ko mu dem ñaan googu yaakaar jooju ak xel mu dal moom ak équilibre social bi muy am ci moom loolu milliard mayoo ndax bu ko milliard maye woon moo tax moo tax ma wax ak sama mag le président la république que mu bàyyi xel ne citoyen ordinaire amul citoyen tout pour mu am ci biir citoyen yooyu nag yàlla mooy tànn ku ci nekk def ci moom la ko neex comme ni ko yàlla tànnee def ko président de la république mu yilif ñëpp utiliser alal réew mi ni mu ko neexee ñu jox ko suñu alal mu utiliser avion di utiliser toutes les commodités et avantages noonu ko yàlla cëralee cër boo xamante dafa am limite dafay am fu muy tàmbali am fu muy yem nga xam ne noonu la ci matériel nga xam ne noonu la yàlla cëralee ay kilifa yoo xamante ci biir capital immatériel cër yoo xamante ni dafa illimité dans le temps dañuy dund ba bàyyi ko fi fañ leen denc sax di génn ay ressources yoo xamante day dundal seen njaboot na bàyyi xel ne. yàlla moo sàkk ñaar capital matériel mooy nitu nguur àddina ak capital immatériel mooy nitu yàlla bu suñu borom gërëm bu fekkente ni nag li yàlla dogal ci yow d'accord nga ko bëgg ñu la koy matalal à 100 pour cent te li yàlla dogal ci keneen nanguwoo ko mais da ngay sonal sa bopp da ngay sonal sa bopp durant toute ta vie c'était une parenthèse une précision parce que dafa jot léegi njabootu Sëriñ Tuubaa yi euh, bu wax jotatee domaine bu ci nekk nga ca xam war caa wax wax ci ndax sëriñ bi yàlla fàggul na ko lu bari lu baree baree bare ci fii la gën a yaatu maanaam boo xoolee yi gën a màgg si yoonu Mouride ci yoonu nekk ci li ñu gën ci yoonu am nañ ci kër wala si njaboot ñoo si lu ci mel ni par exemple Mbacke Thiaw Darou Salaam Pallé suñu si kër Salaam ndax bu nga waxee sànq ak Mbacke ñaari gox yi benn gis-gis benn vision yow sa vision dafa nekk par exemple sàmm lekk boobu maa ngi ñëw gis naa ni. boobu mu ngi faral di gis dama bëgg benn précision domaine boobu bëgguma ci woon wax lu bari mais dina benn précision du ma daanu kat du ma daanu kat ndax bu dee dox def naa vingt sept pays dans le monde pendant vingt cinq ans. kon gis naa lu bari il fait plus de cinq cent et quelques villes dans le monde beneen bi ci des j'ai un MBA en stratégie d'internationalisation à l'Institut africain de management j'ai un MGO en stratégie de gestion des organisations avec l'Université de Québec à Chicoutimi en co-diplomation avec l'IAM j'ai fait un bachelor professionnel en marketing communication du ma daanu kat dox naa jàng naa j'ai été la primature comme conseil spécial en charge de la gouvernance je gérais tout ce qui est suivi des affaires municipales toutes les synthèses régionales des gouverneur pendant trois ans j'ai géré des dossiers secrets de l'État pendant trois ans j'étais au cœur des choses Djibo Ka yal na ko yàlla xare aljana dama toog benn guddi YouTube ni ko suivre 4 heures du matin mu xam le ne homme d' état wala ko gérer les affaires de l' état li ngay xam da nga ko war a deewaale maanaam sunu taalibe nag li ñu sëñ Tuubaa defal moo ñu gënal yii nga xam ne day jeex ndax li ñu sëriñ Tuubaa defal du jeex moo tax souvent da ngay dégg ñu lay takk ne di la tooñ doo tontu doo wax li tax ma xam ne ressource benn ressource benn ressource moo am diggante Touba ak Mbacke muy Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul ressource boobu moo tax 5 millions de personnes di daje Touba par Magal amul benn pays au monde benn activité au monde buy mën a regrouper 5 millions de personnes amul. activité boobu ñetti fan yi di dresser plus de 285 milliards entre guillemets selon l'université Bambey loolu amul benn réew buy drainer. mbooloo mu ñu toll ak activité bu ñu toll ci temps boobu te ña fay daje kenn du jënd lekk kenn du jënd naan kenn du wut foo ku la koy fay hébergement amul loolu nag ressource bi tax loolu am muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Cheikh Omar Fouti Tall moo ko njëkk a fii ci Mbacké déjà loolu marqueur territorial képp koo xamante ni tukkulóor nga yaakaar Cheikh Omar Fouti Taal war nga ñëw ziyaare mbusoobe garab gi nga xam Cheikh Omar Fouti fa dañ njëkk a découvrir Sëñ Tuubaa te yendoon fa Sëñ Tuubaa yendu fa ba ci li muy bind Masaalikul Jinaan fa la nekkoon ça c'est un peut-être mbir dana am ña ko yor duñ ko xam duñ ko maîtriser joxoñ ko gëdda parce que xamuñu wala buñ xamee it peut-être du priorité beneen ba ci des Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Mbàkke rek feeñee jamono fi mu feeñi jamono fii conseil municipal bi délibéré na jébbal ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul pour sëriñ bi def fa daari kaamil yoo xamante ni dañ fay wàcc alxuraan continuellement doon bërëbu ziar fii tey stade bi nekk kenn mus ko moom ci àddina bi fi sëriñ Touba jógee sañ ci Daaru Salaam ba tey nit mus ko moom stade bi dama jàpp ne dafa fa nekkoon pour denc ko ndax bu fa nekkoon dañ ko morcelé même club olympique bi waxoon ñoo ko moom c'est pas moomuñu ko feneen lañ moom ndax titre foncier 1788 du fii fii kenn mus ko titre kon dafa ne woon pour protégé ko moo tax conseil municipal délibéré jox ko Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha commission bi liggéey ci commission bi présidée par le maire de Mbacké le chef de service des impôts et domaines le chef de service de l'urbanisme le chef de service du CARAS ñoo daje toog liggéey ci jébal ko préfet ñu approuvé ko ñu defar bail bi le gouverneur approuvé ko ñu dugal ko titre foncier ci la ko ministre bi au lieu mu andil ko ñi ko liggéeyee ñu dem jébal ko sëñ bi ñu coupe circuité màggal Tuubaa dem jébal ko sëñ bi mais loolu c'est pas important ndax c'est politique mais li am solo mooy mbubb mii ma sol sëñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko yëkkati jox ngir mbégte lim am ci kër Sëñ Tuubaa ndax dimanche la ñëw ci kër Sëñ Tuubaa ci fii ci mairie bi wax ma lim bëgg ma teg ci sama sama kemtalaay kàttan ànd ci le conseil municipal ba ñu voté ko ak l'unanimité ñu jébbal ko commission bi ko war a liggéey bi commission bi pare jébbal ko le préfet mu approuvé ko ci loolu bis bi ñu ko jébbale kayit yi xolam bu sedd moo tax moom mii la soloon jour boobu ci la faykati jox kon man awma droit li sama kemtalaay kàttan maa ngi koy def pour redresser pour relancer relance programme de relance boobu nag moo tax su ressource bi Touba am mu Cheikh Ahmadou Bamba ba tax ñëpp fàq ñëw moom la ñuy mettre en valeur moo tax ñu miirewaat barabu Mamoor Jaara borom sàmm ndax fi toll ci sëñ Touba fi ko deñ wërtoonu mel na meloon beneen bi ci des ñu liggéey li nga xamante ni mooy armée li bàpp bi pour segam ñi ngi liggéey ka sëñ Touba armée li bàpp yi warees na ko liggéey liggéeyin woo xamante ni ku fi jaar da xam na ay wàlliwu ay nit ñu baax ñoo fi tëdd noonu lañuy liggéey une partie di cimetière tukulóor yi am suñu meneen mbokk bu baax mu ñëw dugal ci loxoom ndax loolu noonu la liggéey bi demee eglise bi noonu la leen jàppale ñu defaraat église bi loolu waral bi nga xamee joxe nañ kër Sëñ Tuubaa gi ñu yëkkati 100 tonnes ciment joxe dans un premier temps yëkkati 80 joxe waat loolu bu ñu koy def pour kër Sëñ Tuubaa gi taxaw la te du ñu arrêté bu ñu suñu borom dimbalee bu ñu jógee ci yii. bu ñu yàlla def lay ndam lañ defoon dañ koy defaat ndax kër gi dafa war a liggéey bi dafa warut taxaw te du taxaw liggéey Sëñ Tuubaa ci dynamique boobu ci la ñuy liggéeyee ba teen bi maam Cheikh Ibrahima Fall daan rootal Serigne Touba ñu jël décision pour gasat ko mettre ci des équipements yoo xam mu nekk teenu barkeelu teen bu ñu daan rootale Serigne Touba ñëpp dañ ci war a barkeelu donc kon ñun suñu liggéey mooy. fexe de sorte ndax gis nga ren ni Mbàkke ubbee ko ci màggal yi dañuy liggéey de sorte que pour que ñu tijji Mbàkke définitivement pour que murid yi màggal si harcèlement bi nekkul bàpp gi ba soobee kër sëñ Touba gi. moo de Mbacké l'association des professionnels de la presse en ligne du Baol indi initiative bu am solo fa seeni si ond ak mboolem candidat toutes les coalitions toutes les listes mu doon municipal wala départemental jàpp leen seen i ay plateau lan nga mën a layale loo xam ne lu leer nañ nga lay doon sans pour autant que ay théorie mais nga nekk carrément Mbacké lii moo tax ma jël aspect religieux bi ma gën a sama loxo ci waa diine gi Euh, te mu doon nag lay wu dëgër maanaam argumenté vos arguments. émission ay direct ci concept bi ñu duppee tànneefu askan wi mbokk mën ngaa gaaw saisir bi les opportunités moo lay may visibilité yi di nga si ànd ak ñun mooy technique yu xarala ngay am sur plus de vingt sites internet mais également après le direct di nga am intégralité émission bi bu ngeen amatee ay caravane ngeen am ay proximité ay porte à porte ngeen def déclaration saisissez cette opportunité ndaxte moo leen di jembal fa ngeen bëgg seen message àgg fa mu àgg fa si li mu gën gaaw a gaaw ànd si ak ay professionnels si mbooleem wàll lépp lu ngeen ittewooti si wàllu wu ni mel couverture médiatique appel ba jóg taxaw tem ngir ànd seeg yéen si bëggee ay renseignements mën ngeen yii di défilé ak sunu service commercial local 2000 bu fekkee dañ koy da nga bëgg ziyaare lu bokk ak Sëñ ci deret Maam Moor Jaara ñu tudd fi ak fi mu tolloon Sëñ Tuuba bu fekkee da ngaa bëgg ziyaare doomi Sëñ Tuuba Mouhamadul Kabir mi ngi tëdd fi mooy taawam soxna Fatima mooy magi sax moomul Faadal te lu lu yéeme la waxoon soxna Fatima dana moom juddu bokk ci Sëñ Tuuba doy na ko ba yàggul dara mu faatu te boobu tout tànk Cheikh Mamadou Yadaali circonstances yi mu génne àddina maanaam taroon na Sëriñ Tuubaa tar goo xamante ni murit bu ne war ngaa déplacé fa nga nekk di ziar Cheikh Mamadou Fat Cheikh Mamadou Yadaali ngir dundu la Sëriñ Tuubaa maanaam circonstances yu métti yi nga xam ci la doomam jooju wàññeeku Mouhamadou Abdoul Khadir mi ci biir baram Sëriñ Bousso bi ay doomi Sëriñ Tuubaa la yoo bi ñuy génn àddina maanaam ni mu taree ak ni mu métteewoon sëñ bi ñun murit yëpp war nañu dund la Sëriñ Tuubaa tar boobu di leen ziyaara di leen ñaanal ngir bokk suñ Tuubaa yéeg yi boobu barkeeloo Daaru Salaam la Sëriñ Tuubaa njëkk a sañ Maam Cheikh Anta mooy échantillon ci yoonu Bàmba maanaam li Sëriñ Tuubaa defar échantillon bi nga xam ne mooy lu réussir wala lu réussir mais échantillon bi mu njëkk a def ci yoonu Bàmba mooy Maam Cheikh Anta mu une réussite à 100 pour cent boole ko ay taalibe jox jàkk ji Sëriñ Tuubaa njëkk rëddal tànkam bi di fa jiite pendant deux ans mi ngi daaru salaam bépp murit war na faa dem ziyaara ji julli fa ñaan ci Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bi mu jigee ci géej gi lal bim mu ñu koy teral mi ngi fii ci daaru salaam maam Cheikh Anta tëdd fa sëñ Modou maam ak doomam yu mbaax yépp tëdd fa dafa war a bokk ci murit yëpp njabootam gépp a ngi fii ci daaru fii ci Paleen sëriñ Omar Diop nga xool ne waxoon na sëriñ Tuubaa xëylul wenn wàlliw gontelu mi ngi mbàkk yi sëriñ Busoobe njabootam gépp a ngi fii ci mbàkk yi sëñ may Amar njabootam gépp a ngi mbàkk yi njabootu Cheikh Amar Fuuti Taal ñi ngi fii ci mbàkk donc nga xool ne ñun suñu rôle mooy la promotion et l'attractivité de la commune de Mbacké pour que nit ñi mën a am une fréquentation fréquence boobu nag mooy ci ngay basé wu pour indi des programme lu jëm ci wàllu commerce lu wàllu jëm ci wàllu hôtellerie lu jëm ci wàllu lépp loo xam dafay jur xaalis beneen bi ci des mooy intercommunalité bi li tax moom solo mooy Touba des vingtaine de projet ñàkk na ko yoo xam li ko waral mooy problème de foncier parce que Touba titre foncier global la titre foncier bi turu Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rassoul nekk pour la communauté mouride ci intercommunal dana permettre les projets yi nga xam da koy da war a porter te amul fonds si mu ko teg ñu waxtaan ak commune de Mbacké d'une manière conjointe teg ko ci lu leer waxtaan nga xamante ni bu boobaa projet bi bu ko bu ko Touba porté su ñëwee Mbacké lañ koy implanté Mbacké di ci gagné lii Touba di ci gagné lii intercommunalité boobu li muy jur mooy élèves yi nga xamante ni 80 pour cent yi waa Touba lañu Touba mën a am canal institutionnel pour mën a teg sur la table de l'argent pour accompagner ses élèves boo xoolee toutes les activités sportives yi nga xam dañ koy defee Mbàkke ñu ci ëpp waa Touba lañ te Touba da ci wala participer te intercommunalité boobu mooy permettre rubrique yi nga xam ci budget dañ ko jox pour culture te du ko utiliser jox ko pour sport du ko utiliser jox ko pour leen te du ko utiliser mu mën koo ci biir projet intercommunal bi ndax boobaa Touba day nekk une commune autonome gérer projet Mbacké une commune autonome gérer projet mais day am ay projet yoo ñoom ñaar ñoo koy seet ndax manque à bi nga xamante ñun dañ leen dañ koy gàddul Touba foofu la Touba mën a profité pour mën a verser xaalis ci biir projet intercommunal yi ñu mën a jël en charge xale yi ci domaine santé éducation. dafa yaatu ndax boo xoolee marchand yi ci secteur informel lañ nekk moo tax ñoom un projet pour réhabiliter le marché central en cinq étapes la première étape liggéey nañ ko mooy mal bi ak li ko wër en pavage pour permettre ndox mi di mën a dem mais ñu reprendre architecture bi liggéeyaat mal bi ba mu nekk mal bu mu ci ayib ñu jënd quatre frigo congélateur jox ñetti ñiy jaay jën may leen ko benn bi jox ñiy jaay yàpp deuxième phase bi moom laa wax tout à am na deux cent million boo xam ci par ci biir 408 millions yi ñu ngi ko jegleel marché central bi mais aussi am na beneen enveloppe bu ñu jagleel marché sancaan yi ndax marché sancaan yi lotissé woon nañ ko joxe loolu mooy première étape deuxième étape bi mooy ñëw defar mal ba ba pare yokk éclairage bi mais aussi yokk li nga xamante ni mooy salubrité mooy cet ga fa nekk ndax boo xoolee li dëkk ci côté Santhiane yi dafa bari bien vrai que lii mooy marché central bi mais ñaari marché yëpp dañ ci continuer di ci liggéey dañ may équitable beneen bi ci des commencé nañ ay cantines yoo xamante ni yóbbu woon naa ñuy jaay dàll ak yenn commerçants yi à Dakar benn immersion ñu dem découvrir xool cantines yi nekk ci zone boobu bi ñu gisee cantine bëgg nañ ko mais teewul dama entrepreneur bi na ñëw defaral ñu 5 ñu xool rafetlu nañ ko bëgg nañ ko mbaaru daal aussi cantine yooyu lañ fi bëgg a def accompagner jeunes yi foofu ñu mën ci accéder en moindre coût pour ñu mën a gën a nekk dans des conditions les meilleures ci biir transport bi ñun liggéey nañu ndax dañoo ñëw fekk gaaru ceeru Mbàkke ñu joxewoon ko ci benn benn baay bu quatre-vingt-dix-neuf ans mooy naa un million cinq cent par mois ñu liggéey ci liggéey ci ba wàcc ko ba vingt-cinq ans mooy naa million de francs par année ñu waxtaan aussi ak transporteurs yi ak ki nga xamante ni mooy promoteur bi pour que ñoom ñu mën a dugg ci biir garage moo amoon nag ay xat-xat ci diggante ki nga xamante ni mooy Pape Diop Diagne nag yàlla xare aljana ak le promoteur mais ñi ngi ciy liggéey avec le nouveau préfet ba am nañu benn consensus boo xamante ni dañuy redynamiser garage bi gaaru ceer bi ni ñuy dugaat ci biir oto yépp mën a dugg ci biir bu ko liggéey bi Mbàkke mën a am benn garage bu fonctionnel avec toutes les commodités pour mu continuer dox ci loolu it am na ay chauffeur de taxi am organisé wu lool sax yoo xam ne ñu ngi leen di déglu di waxtaan ak ñoom donc ñu ngi liggéey aussi liggéey ba rafet ba am na benn projet MECTRANS boo xamante ni am na Touba li tax MECTRANS duggul Mbàkke loolu sama veto la ndax MECTRANS bu duggoon bu yu Touba bu duggoon Mbàkke Mbàkke du jot wàllam suñ bëggee évoluer Mbàkke MECTRANS na financé chauffeur Mbàkke yi ñoom ñoom ay oto yu bees comme ni ko waa Touba amee mais bu fekkee ni dañuy bàyyi rek Touba dugg biir Mbàkke bu ëllëgee samay transporteur duñu am ci oto yi kon suñu bëggee seen liggéey dugg Mbàkke nañ financé sama transporteur dëkk defee ñoom ñu mën a defar seen bopp bu dee ci côté toujours transport jakartaamaan yi jàppale nañ leen euh, ci Covid bi wante jàppale nañ leen ndax 3000 lañ daan fay ñu wàññi leen ko defal ko 2000 francs yëkkati 1 million de francs may leen ñu def seen kees ñu jënd ci ay jakarta di ko leen seen biir donc xam nga développement comme li du lu ñuy décréter mairie rôle am mooy organiser di am ay reset di ko redistribuer askan wi li ngay jël nag di ko joxaat askan wi di manière sociale liggéey ak ñoom d'une manière ngeen jóg ndànk-ndànk dox ba teg lu dëgër moo gën ngay jóg rek sonal leen fàqat leen yàq seen lu bari ndax boo seetloo 2017 2018 bi ñuy dégg depuis Touba am na caterpillar boo xamante ni mi ngi woon kër buntu kër alaaj xaadim ak cinq camions boobu Mbàkke lañ ko affecté woon pour ñu dëgër piir artisan yi nekk ci artères yi mais damaa gis ne boo leen dëgër piir te amuñ fuñ jëm déjà ku ci sa soxna feebaroon wala ku ci amoon jafe-jafe nga dëgër piir ko jafe-jafe yi gën a yokk ma ne man gëwuma dëgër piir ma li ma gëm mooy redéploiement stratégique c'est-à-dire nit ki fi mu nekk di fi daan dooleem donte nekku fa ci yoon jàppale ko mu am fu gën fa mu nekkoon mbaa fu mel fa mu nekkoon pour ay activités mu continuer rôle mairie liggéeyam lépp réglementation c'est vrai dafa am une rôle un rôle régalien d'accord mais aussi dafa am aussi benn touche sociale boo xamante ni ci mën a appuyer pour mën a accompagner askan donc ci biir euh, conseil municipal bi am nay artisans am nay commerçants donc tous ces paramètres jël nañ ko en charge dans le cadre de notre programme d'ailleurs deux deux hectares huit cent yi ñu natt pour jox ko les artisans c'est validé c'est homologué dañ koy exécuté d'ailleurs Mor Sow lañ ko dénkoon yàlla dogal bi mu tolloo ci wàllu jublu ci mu am jafe-jafe loolu moo tax ñoom jotuñu sax seen kii avant mais incha allah bi cent 291 ateliers et garages la. c'est calé c'est acté dañ leen koy redistribuer pour mën leen libérer ak jërëjëf le ministre de la jeunesse ñëw na fii def une proposition ni dafa bëggoon a réhabiliter conseil communal de la jeunesse à l'époque publiquement gentiment ñu sant ko gërëm ko wante xamal ko ne ñun réabilité wuñ soxaluñu une réhabilitation parce que am nañu projet pour tabax un complexe la jeunesse ci loolu it wax dëgg yàlla ay yëngu amoon na fa ndax yenn jeunes yi meroon nañu wax ba am na sax ñu xaw a dépassé mais xam boo jiitee da ngay war a yaatu dënn da nga war a nangu encaissé sept yi dund naa fi coono yu méttee méttee méttee dund naa fi wax ju bari sos saaga tooñ mais yëpp boo toppoon ñi ko def rek doo doo doo sori moo tax boo jiitee sa xol dafa war a ubbeeku war a ubbeeku sa dënn dafa a yaatu war a a encaisser ci loolu coow li li muy bari bari bari après ci les ministre bi jël décision pour réhabiliter le CDEPS e e ñu lancé liggéey bi def ci liggéey bu am solo raser ko def fii li nga xamante ni mooy complexe communal la jeunesse parce que àddina il faut être ambitieux àddina bi ñun tubaab yi duñ suñuy njaatige suñuy nawle lañu ñu am rek ñun war nañu am lu ko raw ndax am nañ ñoom lu amul ndax boo la Afrique yàlla ay ressources la ko may tubaab yi yàlla may leen xarañte te xarañte boobu jàng moo ne ko may kon ñun il suffit ñu jàng am xarañte wante dem ak éthique ak déontologie parce tubaab yi buñ jàngee xarañit am na ay am na ay valeur yoo xam ne am nañ ko te valeur yi ñun ñoo leen ko ëppale mais ñu nañ ko am te utiliser ko ñoom lañ ko am nag utiliser kon ambition yi moo taxoon ñu ne nañ ko raser tabax fii sa complexe boo xam ne am salle polyvalente ci suuf am des toilettes am cuisine am débarras mais aussi ci kaw ñu def bulletin municipal ak bureau conseil communal bureau culture bureau sport donc loolu moo ci nekk dëgg yàlla bëggoon na ko mais ñun à li ñu gis moo gënoon a kawe li ministre bi gis on n'avait pas les mêmes visions. voilà merci beaucoup monsieur le euh, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm peut-être leeral yi mënoon na ëpp lii waaye temps bi nga xam ne amoon nañ ko dañu ci yegg si boo ñu doon jox kàddu yu mujj yi rek euh, pour ñu joxante di daje beneen lañ lay doon. kàddu yu kàddu yu mujj yi mooy sant yàlla bu baax di sant population de Mbacké yépp di sant kilifa yi nga xamante ni ñoo jiite tëdd mën ci tuddoo Sëriñ Abdoulahi Mbacké xalifa Mamour Diarra tudd ci sëñ Abo Mbacke xalifa Daaru tudd ci sëñ Cheikh Amdi Hadi xalifam maam Cheikh Ibrahima Fall tudd ci njabootu sëñ May Amar tudd ci njabootu sëñ Omar tudd ci njabootu Cheikh Amadou Tall ñi nga xamante ñooy taalibi Cheikh Ahmad yi nekk dëkk bi yëpp ci jiital Cerno Abdoulaye Bousso ci jiital njabootu Mbusoobe ci jiital njabootu ci Mbàkke Ramata di ci jiital njabootu Sëriñ Tuubaa yi xam moo jëf seeni waajur ne ci dëkk bi ci jiital soxna Maymuna Mbàkke ak ay rakkam di ci jiital jàngu bi di ci teg kilifa yëpp di ci teg kilifa yi njaxala yëpp fàttewuma kenn di leen ñaanal suñu borom yàgg leen suñu kanam wante aussi di ñaanal dëkk bi yàlla def fi jàmm ak salaam di ñaanal waa dëkk bi suñu borom dafa leen teraanga yu sax di ñaan suñu borom mu defal jàmm ak sutura waa Mbàkke ba lépp lu suñu borom di def Mbàkke ak la ci ci barke Xaadimu Rasuul maa ngi remercier aussi population yëpp di sant sama bokk yi nga xamante ni ñoo nekk ci sancaan yi muy Daaru Salaam 1 ndax day zone boo xamante ni man dama jàpp ne sama projet la quartier boobu sama projet la ndax dañu fekk ku dara nekkul ñu rey ibrahim te mbir deesu ko forcé ndax ndax loolu du xaalis ne sama xaalis te fas naa yéene bu jàllee d'ailleurs ambulance baa ngi Mbàkke ci peintre bu jàllee dinaa dem teg ci loxo suñu abo mu yóbbu leen ndax désormais Ndoyeen extension zone boobu lépp ci Darou Salaam maa ngi tamit remercier sama collaborateur yi nga xamante ni ànd naa ñoom liggéey ci conseil municipal bi 2014 maa ngi féliciter aussi di encourage ci biir conseil municipal boobu maa ngi ñaan si borom mu tëj bi jafe-jafe métti yi tege ci kaw Mor Sow premier adjoint ak soxna Aminata Silla bi nga xamante ni mooy jigéen ju man góor liggéey ne ci Mbàkke ci biir conseil municipal bi liggéey bu jéggi dayoo yal na ko yàlla fay di remercier l'administration communale bu Mbàkke ci bopp yi ma jiite ci secteur municipal wante di ñaan yàlla suñu borom mu defal tawfeex ñu fàlluloo bi agent municipal dynamique wante di sant aussi bu baax ci collaboration service technique yi nga xamante ni ñoo àndoon di liggéey ba 2022 di waxtaan ak askanu Mbàkke rek xamal leen liggéey bi boo te taxaw day continuer perspective yi am na solo programme yi mi ngi sur place ñu ngi jëm ci defaraat tali nekk biir Mbàkke ak Mbàkke rond-point Mbàkke ba Kaffrine Eiffage mi ngi installé à Diamaguène am na tali bi yëpp dañ koy defaraat avec les mais aussi ak voirie biir Mbàkke plus assainissement bi donc projet yi bari na loolu ci bari dañ ko porté liggéey ci sonn ci ndax ñun dëkk bi du politique moo ñu boole ak waa Mbàkke ndax politique day jeex mais Serigne Touba moo ñu boole waa Mbacke moo tax laataa ñu doon maire ñu jël suñu alal di ci sonn pour dëkk bi bi ñu doonee maire it dañ ci dañ ci xar suñu tànk tubéy moo tax ñu toog Mbacke dem fi sax Dakar rarement lu dul farata ñu continuer bu ñu dee ba mission bi matit dañuy continuer di dugal seen loxo ci Mbacke ngir Serigne Touba moo tax nag maa ngi waxtaan ak bokki Mbacke yëpp. ñëpp jàppale ma ci liggéey boobu ba dimanche ñu jàppale ñu ci liggéey bi woteel suñu coalition bii di coalition Bokk Gis Gis pour que au soir du 23 janvier 2022 ñu jotaat ci commune Mbacké continuer liggéey bi wante ñu jot ci conseil départemental bi ak ci Abdou baax Bara Dolly pour liggéey bi mën a jëm kanam ndax perspective yi suñ kanam euh, àddina dafa dox te retard bi Mbàkke am année yi romb ak dynamique bu bees bi ak engagement bi ak ni jeunes yi commencé yeewu ni ñu commencé am volonté populaire pour yëf yi dox kooku warul taxaw warul ralenti ndax dañu war suñu rajo yi nga xam ne ñoo doon synchronisé ñu ngi leen di gërëm dañuy coupé ak ñoom waaye nag boo nu ko mayee ñu continuer ak appel B association des professionnels de la presse en ligne euh, sunu mbokku site internet yi euh, war nañu mën a dem ba quelques simili ndax am na question yoo xam ne ñoom bëgg nañ ko leerlu ci sa jëmm ji ak liggéey bi yaa ngi koy liggéey kon ñoo ngi gërëm Walfadjri di gërëm i rajo di gërëm aussi Zik FM ci seen collaboration ak ñun vraiment ak Salam euh, FM vraiment seen taxawaay am na solo ñoo leen gërëm boobaak léegi taaxirlu bi yàggoon na waaye ñu ànd ak ñun rek ba pare aussi tamit euh, bàyyi lu bari seen programme jagleel ko suñu open press bi nga xam ne organisé nañ ko ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax ñoom auditeurs yi bàyyi xel ñetti rajo wala ñeenti rajo yooyu Walf Zik i rajo ak Salam FM ñu continuer ak appel B association des professionnels de la presse en ligne bu ko defee kon nga may na ko tuuti rek xat nga waaye nga may na ko tuuti rek ñu yeggale ñu jox la question à Abdoulaye Faye bu ko defee moom membre la ci association bi mu poser sa question wala ses questions incha allah. jërëjëf sëñ Bassirou Amar monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di rafetlu jataay bi xam naa am benn laaj bu nu bëggoon samp wala ñaar mu mel ni euh, bu nu waxee département bu Mbacké surtout diggante Mbacké ak Touba nemmeeku nan jafe-jafe yu am solo yoo xam ne ni askan wi ñu ngi koy dund ci wàllu transport rawatina élèves yi ngeen bokk ci ñi nga xam ne ni da di laajaat mairie bi. ndax mën nañoo xam ndax ndax mën nañoo xam ndax mairie bi am na benn programme boo xam ne nii jagleel na ko côté boobu surtout élèves yi beneen bi itam wax nga ko léegi ci sa njalbeenu kaddu wax nga ko sa fin kaddu muy jafe-jafe yi nga xam ne ni jamono yi nemmeeku nañ ko au niveau de votre mairie jëm ci euh, ay ay doomu aadama yu nu tumaal ci wàllum këyit wax nga ne mu ngi ci loxo yoon loolu itam bu jëlee loolu teg na le day mel ni askan wi léeg-léeg dañuy xaw a am ay jafe-jafe ci wut ay këyit ci bërëb yi mën nañ ci tudd léeg-léeg ci maire yi su yi ci police yi et cetera te loolu nekkoon loo xam ne ni lu leen war a yomb la ñu bëgg na xam euh, bis boo jëlaatee maire bi ban taxawaay ngay am ci loolu ba yombal ko moo xam muy transport bi moo xam ci wutum kayit bi jërëjëf. jërëjëf nga daaneel laay tàmbalee ci wàllu kayit bi ñuy en 2014 dañoo jël huissier de justice mu defal ñu constat ci bi nga xamante ni mu am wàllu kayit. li fa nekkoon ci wàllu kayit bokk na ay années yoo xamante ni du am registre wala registre su néew la ma jox benn exemple mille cinq registres moo am ci mairie de Mbacké juróom cinq registres mooy représente 250 personnes waaw chaque registre 50 personnes lay def te mille personnes 12500 personnes environ am nañ ay kayit ci 2005 léegi nga xool mille cinq 12500 personnes. boo génnee deux cent cinquante personnes day def douze mille deux cent cinquante personnes yu am këyit te amuñu registre li dal suñu agent yi du dara lu dul defaral nit këyit sukkandiku ci këyit yi xamante ni dafa jeex te nekkul ci registre am na ci boo xamante de 1991 la officier d'état civil bi ko defaroon mi ngi fi donc kon rëq-rëq yooyu euh, ay mesures correctives la ñu war a jël loi bi am lu mu prévoir ci loolu waxtaan naa ci ak kilifa yi nga xam ñoo yore wàllu yoon li ci loi bi prévoir mooy nañu fexe ba ñu am kayit ñu continuer seen seen droit yooyu ñu continuer di ko am benn on va vers ce qu'on appelle la reconstitution des archives reconstitution boobu segam ñoom les autorités judiciaires d'accord tuñ bu andi kayit bu jeex ñu sukkandiku ci defaral la ndax nit bu amee carte ci kayit am ci passeport am ci extrait bu jeex bu ñëwee da ngay da defaral may yoon aussi dafa am nu mu organisé te loolu segam nangootuñu ko kon nit nañu bàyyi xel ne li gën a jàmp actuellement mooy cette rencontre la bu ñu war organiser ak autorité yi nga xamante ñooy les autorités judiciaires autour d'une table ñu def un diagnostic approfondi ci li nga xamante mooy l'existant parce que existant bi ñun déjà ñun bàyyi woon nañ ci xel ba defoon constat pour année yi nga xam ne yëpp amul registre te reconstitution boobu buñ ko fa xasee def njariñ li muy jur mooy puisque ñun répertorié nañ plus de mille cent trente et mille personnes dans le système registre yi nga xam ne existé na yu ëpp scanné nañ lépp lañ scanné bu ñu defee la reconstitution mooy ñi nga xam ne répertorié woon nañu te nekkoon ci registre ñu créé ay registre yu bees tribunal parafé ñu inscrire leen ci pour boobaa léegi problème bi jeex définitivement mais fii ñu toll nii li tax mu am ralentissement mooy ñi xam ne ñoom kayitu juddu te nekkul ci registre sa gëm tribunal ne ne ku nekkul ci registre bu ñu la defaratal kayitu juddu dañuy obligé tamit arrêté ci ci pour ñooñu nekkul ci registre te seen droit la parce que ñoom defuñu dara c'est des citoyens mais 2005 ak la ko jiitu officier ya fi nekkoon ak ñi doon gérer kayitu juddu doomu aadama yi ñoo ñooñu ñoo defuloon seen liggéey la preuve li ñuy ñëw 2014 ay saako lañ fekk yoo xamante ay vole ñoo ci nekk vole mooy bu am bu amee bu ñu war a transcrire au def ko ci registre. dañ ko doon transcrire ci ay papier yoo xamante si des papiers volants papier volant yooyu nag moom lañ doon day daf koy takk daf ko ci ay saako mu tawte bi mu tawtee nag ñun bi ñuy doole automatiquement benn suba teel lañ ma woon ne ma oto mbalit bi génne na saako yu bari ci oto bi war ko tuuri ci laa wax le secrétaire municipal mu arrêté chauffeur camion bi bañ bi ñëwee après le premier adjoint dem wooy huissier de justice mu constaté ñu xool ko liñ ci mën ubbi ñu ubbi ko xoolaat xam ne lii ay ay transcription la ay kayitu juddu yoo xamante nii dañ koo def ci registre defuñ ko ci yàqu na kenn mënut ko exploité yooyu boo xoolee bokk na ci rëq-rëq yi nga xamante ni moo individuel mais ñi ci am kayit reconstitution bi mooy li ci base bi la ñuy ci ay registre ci témoignage yu président tribunal bi nga xamante moom mooy kilifa gi gérer tout ce defee liggéey bi mën a continuer mais pour bu dire que ci wàllu sécurisation teg nañu système boo xam ne ci état civil ku yàlla bind mënatu ci def rëq-rëq te lu ci waay def balaa mat deux minute une minute sur la machine da nga xam kan moo ko dugal ak nan la ko dugalee mais nag lii ay ay erreur yoo xamante ni ñi jiitu woon dañ ko def moo rattrapé suma ay agent et nag loolu pour protéger agent yi aussi il faut que autorité judiciaire yi ak mairie bi toog ñu juboo ci benn programme liggéey ko pour aussi man ma mën a protéger samay agent ndax bu dul loolu lii day continuer ndax c'est liggéey la ñu fekke wuñ ko kon waruñoo conséquence warul dal suñu kaw li jëm ci transport scolaire déjà ñun amoon nañ un projet avec Tata pour waxtaan pour que ñu ñu joxe benn apport ñu jox ñu 20 Tata ñuy fay ndànk nag bi ñu ci defar projet bi maa ko dénkoon fu ñuy wax Daam Saw ak comité bi àndaloon liggéey nañ ci liggéey bu am solo déplacé wu nañ fi ànd ak Cheikh Fall bi nga xamante ni nekkoon na adjoint au maire mécanisien mécanicien àndoon ak Mor mécanicien àndoon ak yeneen ñaari conseillers ñu dem seeti direction Dakar le directeur général ba njuboo ci principe bi mais ARMP ñoo accepté wul woon type de projet bi ñu waroon def li ñu accepté woon mooy lancer benn appel d'offre ndax concessionnaire yi fi nekk yëpp mën ci participer looloo tax nag dans notre PDC dans notre PAI notre programme de notre programme triennal d'investissement mooy PTI bi prévoir nañu en 2023 219 mais aussi am na beneen projet bu ñu teg ak Touba donc kon teg nañ deux projet benn bi ak Touba la dans le cadre de l'intercommunalité pour jënd ay bus pour transporter élèves yi deuxième bi dans le cadre d'un projet boo xamante ni commune de Mbacké rek moo koy porter pour mën a jël en charge les élèves yi xam xam dañuy jàng Mbacké ak Touba ak ci biir dëkk mbir mi jeex na ñu ngi lay gërëm bu baax ci sa disponibilité tàggatoo ak mbokk yi ba yeneen i jamono euh, incha allahu taala monsieur le maire waaw fi may daanele kàddu yi rek mooy ñun suñu njiitu dëkk ñoo koy tànnal suñu bopp kenn duñu commune waa dëkk bi ñoo xam ki gën ci ñoom nga xamante ni bu jafe-jafe amee walla bànneex moom la ñuy gis ki accessible ci ñoom ki nga xamante ni mi ngi liggéey suba ak ngoon guddi ak bëccëg pour jàppal leen pour que ñu réaliser seeni rêve loolu jeunes yi xam nañ ko jigéen ñi xam nañ ko góor ñi xam nañ kon maa ngi leen di ñaax rekk pour que incha allah rabbi dimanche mbooloo mi génn teel a voté ñu wàcc ci kër yi wante ñu sécuriser li nga xamante ni mooy vote beneen bi ci toog mooy ñu bàyyi xel ne am na ay doomu aadama yu jël ay xaalis yu bari ko jox ay nit ak di def ay corruption ñu bàyyi xel ne xaalis yooyu ñu joxe am nay jamono gënoon naa metti te askan wi na ko soxla te defuñu ko ci jamono yooyu gënoon naa mais nag nit ñi nelawuñu gëmmuñu nelawuñu xam nañ ku leen bëgg utiliser def leen yéegukaay xam nañ aussi kuy sonn pour ñoom kon maa ngi ñaax jigéen ñi ñu teel a génn mobiliser wu dem vote ñaax ndaw ñi xam ne dëkk bi cinq ans yi ñëw seen avenir dëkk moo nekk en ku ñuy jiital di ko tànn na doon koo xamante ni seen intérêt daf caa nekk ndax dëkk duy caaxaan dëkk kenn du ko délégué ridwanullah alayhi Ibrahima Gueye yal na ko yàlla xare aljana bi ñu defee passation de service ba pare dane ma maa ngi lay conseiller conseil boo xam boo ko toppee li ma daloon du la dal man li ma nekk maire lépp xaw ma ci dëkk bi dara samay pouvoir yëpp dama ko délégué woon weekend laa fi ñëw wa ilaa bu ma fi yàgg yàgg ñaar wala ñetti fan laa fi fexeel ba sagam engagé woo pour jiite dëkk defal tout pour lépp loo man ba toog ci dëkk dundal dëkk bi seeni problème ànd ak ñoom ci li nga xamante ni noonu la dëkk war dafa ñu def te effectivement c'est vrai il l'a kon nag dëkk bu fekkoon ak ministre doon ministre mooy tax sa dëkk dox Ablaye Diouf Sarr maire Yoff depuis plus de trois ans wala quatre ans mooy ministre la santé te hôpital boo xoolee centre de santé Philippe Maguilène Senghor beleen centre de santé bu Mbacké tane bu nii doon ministre mooy tax sa dëkk dox Omar Youm nekk na ministre des collectivités territoriales nekk na dëkk de cabinet du président la nekk na ministre du transport te caajaay bokk na ci dëkk yi gën a arrière Sénégal ainsi de suite ainsi de suite ainsi suite kon bëggoon naa leeral tuuti yi gis nga ministre yi marge de manœuvre yu néew lañu am ci ci seen ministère yi te loolu boo koy wax nit ñi duñ ko comprendre ministre yi actuellement boo xoolee DAGE yi nga xamante ñoo ne ñoo yore xaalis ak équipement yi ci ministère bi en général ñu ci bëri ak ministre wala buñ jubóo it dañoo jubóo pour dëngal DAGE foog gis mu jubóo ministre ñoom ñaar ay sàcc lañ non dafa am loolu yomb comprendre DAGE boo gis mu am complice ak ministre am ñoom ñaar ay sàcc lañ benn deuxièmement les ministères préfet yi préfet ni ñu xamul seen gëdd mais préfet yi ak sous-préfet yi ak gouverneur surtout les préfets et les sous-préfets ñoom ñooy liggéey ce qu'on appelle le suivi des affaires municipales suivi des affaires municipales mooy relater jafe-jafe yi askan wi am moo daan yéeg ba primature su yéegee primature ñu tas ko mu ñëw version territoriale ñu liggéey en version ministérielle liggéey naa ko pendant trois ans bu ko defee ministère yi jot problématique yi nga xamante nii moo am ci collectivité yi problème yooyu moom la ministère technicien di jël pour tëgg ci li nga xam ne la planification année bi ñëw planification yi nag ci lañu sukkandiku pour budgétiser te loolu bu xasee ñëw président de la république rek souvent moom mooy am prérogative ak possibilité ne tel projet tel projet nañ ko annulé defal tel projet mu ñëw à la primature les conseils ci waxtaan ci defal ko fii xool ni muy tëddee présenté premier ministre bu ñu demee ba au mois de juin ñu mën a def projet de loi rectificative buy permettre changement yi njiitu réew mi joxe nañ bàyyi tel projet def tel projet ñu mën a ajuster pour mën a dem sur de nouvelles bases kon ministre yi seen marge de manœuvre ci les projets de l'État yi ñuy porté bariwul lool kon nag ñu xam ne kon dëkk du poste de responsabilité moo koy ne donc poste de responsabilité doon def Ibrahima Gueye yal na ko yàlla dolli leer nekk na ministre de la jeunesse est-ce que def na kon nag ñu xamee ko noonu ñu xam ne dëkk ña fa dëkk ñoo koy defar avec volonté ak xam-xam ak détermination donc ak euh, bëgg dëkk ba aussi c'est important jërëjëf jërëjëf monsieur le maire ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant kon mbokk yi jotaay bàngook muy waxtu yaatu woo xam ne monsieur le maire de la commune de Mbacké Cheikh Abdou Mbacké Ndao mayoon nañu ko ci waxtoom ñu àndoon ko ak ñetti rajo wala ñeenti rajo euh, Walfajri Salam FM Zik FM ak i rajo waaye itam àndoon ko ak euh, association des professionnel de la presse en ligne euh, du Bawol muy appel B ñu leen di gërëm bu baax ci seen disponibilité di gërëm mboolem équipe technique bi nga xam ne aussi moom la ñu àndaloon ci réussite jotaay bi itam ñoo ngi leen ci gërëm bu baax a baax ak mboolem euh, euh, journaliste yi nga xam ne aussi ñoo doon jàpp ci question yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm kon mbokk yi jëre ngeen jëf jotaay baa ngi noonu di gërëm monsieur le maire ci disponibilité am waaye itam di ñaan ñu dem ci élection yi ci dal ak jàmm te génn ci ci dal ak jàmm que le meilleur gagne Magal 2022 ci département de Mbacké l'association des professionnels de la presse en ligne du Baol indi initiative bu am solo fa seeni ci ànd ak mboolem candidat toutes les coalitions toutes les listes mu doon municipal wala départemental jàpp leen seeni ay plateau ay émissions ay direct ci concept bi ñu duppee tànneefu askan wi mbokk mën ngaa gaaw saisir bi les opportunités moo lay may visibilité di nga ci ànd ak ñun ak ay moyens techniques yu xarala ngay am en direct sur plus de vingt sites internet mais également après di nga am intégration intégralité émission bi bu ngeen amatee ay caravane ngeen am ay proximité ay porte à porte ngeen def déclaration saisissez cette opportunité ndaxte moo leen di yembal fa ngeen bëgg seen message àgg fa mu àgg fa si li mu gën a gaaw a gaaw ànd si ak ay professionnels si mbooleem wàll lépp lu ngeen itteewooti si wàllu wunu mel couverture médiatique appel ba jóg taxaw tem ngir ànd seeg yéen bu ngeen si bëggee ay renseignements mën ngeen contacter numéro yii di défilé ak sunu service commercial local 2022 si département de Mbacké appel ba da see soobu ba jeex tàkk ngir gindi askan wi mais également gunge candidat yi. élection locale 2022 ci département de Mbacké l'association des professionnels de la presse en ligne du Baol indi initiative bu am solo fas yéene ci ànd ak mboolem candidat toutes les coalitions toutes les listes mu doon municipal wala départemental jàpp leen seeni ay plateau ay émissions ay direct ci concept bi ñu duppee tànneefu askan wi mbokk mën ngaa gaaw saisir bi les opportunités